bindal malaakam mbooloom ñi ci dëkku efes ne ko ki téye juróom ñaari biddiw yi ci loxol ndeyjooram tey dox ci diggu juróom ñaari làmp diwlin yu wurus yi nee na xam naa say jëf sa liggéey ak sag muñ xam naa ne mënuloo dékku ñuy def lu bon seetlu nga ñi tuddoo samay ndaw ba gis ne ay naafeq lañu xam naa it ne muñ nga ba dékku coono ndax sama tur te xàddiwoo waaye li ma naqari ci yow moo di sa mbëggeel wàññeeku na del fàttaliku kon fa nga daanoo rëccul te def nanga daan def bu jëkk soo rëccuwul dinaa dikk ci yow jële sa làmp ci barab ba mu nekk waaye lii neex na ma ci yow sib nga ni man li ñoom nikolaa di jëf yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm ku daan dinaa la may nga lekk ci garabu dund gi nekk ci jataayu yàlla bindal malaakaam mbooloom ñi gëm ci dëkku samirn ne ko ki jëkk te mujj ki deewoon te dekki nee na xam naa sa coono xamit sa néew doole moona yaa ka duun le ñoo ñu tuddoo yawut xam naa ñaawteef yi ñu teg ci sa der ndajeem seytaane la bu ragal li nga nara daj seytaane dina dugal kaso ñenn ci yéen ngir wut leen fiir diiru fukki fan dingeen am coono nanga takku ba àttan cee dee ma jox la kaalag dund gi yow mi am ay nopp déglul xelum yàlla di wax mboolooy gëm ku daan doo loru ci ñaareelu dee bindal malaakam mbooloom ñi gëm ci dëkku pargaam ne ko boroom jaasi ju ñaw ji am ñaari boor nee na xam naa fa nga dëkk di fa seytaane samp nguuram moona jébbalu nga ci sama tur te weddiwoo sa ngëm ci man ba ca fan ya ñu reye antipas sama seede bu takku ba ci seen dëkk di dëkku seytaane waaye am na lu ma naqare ci yow moo di uuf nga foofa gaayuy sàmm njàngaleem balam moom mi jàngaloon balak mu sóob bànni israyil ci bàkkaar xiir leen ci lekk ñam wu ñu tuuroo xërëm yi ak ci njaaloo te am nga noonu itam ay nit ñuy sàmm njàngaleem ñoom nikola rëccul kon lu ko moy dinaa dikk ci yow léegi te xeex ak nit ñooñu ak jaasi ji génn ci sama gémmiñ yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm ku daan dinaa la jox nga lekk dund bi ñuy wax mànn te mu nëbbu te dinaa la jox xeer wu weex ci kaw xeer woowu bindees na ci tuur wu bees wu kenn xamul ku dul ki ko jot bindal malaakam mbooloom ñi gëm ci dëkku catiir ne ko doomu yàlla ji ay bëtam di xuy ni safara tey tànkam di lerax ni xànjar nee na xam naa say jëf sa mbëggeel sa ngëm sag muñ ak ni nga farloo ci sa jaamu yàlla xam naa say jëf yu mujj ni ñu ëppe yu jëkk ya waaye li ma naqari ci yow moo di danga bàyyi yasabel jigéen joojuy tuddoo yonent di jàngale ak réeral sama jaam yi ngir ñuy sóobu ci njaaloo te di lekk ñam wu ñu tuuroo xërëm yi may naa ko ab diir ngir mu tuub njaaloom waaye bañ na kon nag dinaa ko tëral ci lalu metit te ñiy ànd ak moom di njaaloo suñu tuubul jëfi jigéen jooju dinaa leen teg naqar wu mag dina rey ay doomam te mboolooy ñu gëm yépp dinañu xam ne man maa di kiy natt xol yi ak xalaat yi te dinaa fey ku nekk ay jëfam waaye yéen ñépp ñi des ci catiir te topp leen njàngale moomu te gëstuwuleen loolu ñu naan mbiri seytaane yu xoot yi maa ngi leen di wax ne duma leen yeen beneen yeen bu dul bii jàpp leen ci li ngeen jàpp ba kera may ñëw ku daan tey sax ci samay jëf ba ca mujj ga dinaa ko jox sañ-sañ ci xeet yi dinaa leen jiite ak yetu weñ tojaaj leen ni ñuy tojee ndaal kew ni ma jële sañ-sañ ci sama baay dinaa ko jox it biddiw wu njël yow mi am ay nopp déglu li xelum yàlla di wax mbooloo yi ñi gëm